Bon, bon, mon euh, permettre un peu sur la gestion euh, de la Covid, de la maladie, euh, de, la pandémie en fait. Troisième vague, c'est juste pour la gestion en 2021 de cette, pandémie-là. Wow, voilà, je suis Top Dakar. Non, nous sommes Dakar. Je viens de gagner. Permis de ah, Il vient de Saint-Louis aussi. Ouais. Sa bop di metti. Nga dem hôpital bi. Hein? Médecin xol la ñu jëndal orange nga jënd ko nga à l'aise ba hôpital bi président di inauguré dans une zone X ou Y nga ne hôpital boobu amul ça c'est extrêmement dangereux et c'est scandaleux venant de quelqu'un qui aspire à diriger ce pays ça c'est très dangereux bu leen nous sommes dans un contexte président dafa supprimer le poste du premier ministre mu nekk fast track gestion directe yaa may dégg hmm. mu diggee woon ñoom ñu monté woon au créneau ne li mu que.

pour inaugurer ses réalisations. pour le désenclavement de Fouta Fouta ah, aujourd'hui Fouta est en train d'être désenclavé par des routes et des ponts. l'île à aujourd'hui est en train d'être désenclavé. d'accord n'est-ce pas par rapport à la pandémie. nous référence yi nga au niveau de du Sénégal sur euh, en matière euh, des épidémies. Hmm. Euh, le service bi nga logé au niveau de l'hôpital Fan dirigé par l'éminent professeur Seydi très respecté mais la preuve ba les politiciens yi nga xamante ñom ñoo dans le cadre de l'opposition ba ñu génnee di instrumentaliser euh, sénégalais di leen jëm le comme nous ñu l'habitude habitude diko def professeur Seydi dafa génn dafa attention le présent les tournées économiques du présent causé wuñu troisième vague joxé les raisons valables comme nous avons fait, le par rapport au au euh, de ce nouveau variant là. Mm-hmm. bon je pense que ni euh, voir wax. sur le concret. L'union de ces voir sur. Euh, deux points on va terminer hein. par ça on va terminer par cette quatrième vague et on va terminer aussi par les euh, les grèves récurrentes multi ci transport bi muy ci école bi. Mm-hmm. boulanger donc voilà je pense que rapidement nous euh, commencé si si si si si euh, sëñ bi mbay euh, daanaka année bi gis nga ko quatrième vague bi à l'horizon le ministre bon la question moom moom laa ko posé mais après dinaa ko posé le ministre de la santé il est investi candidat ci élection législa locales yi ñu ma les élections territoriales gis nañu man personnellement personnellement en tant que sénégalais gisuma euh, une une benn politique wala boog benn stratégie bi nga xamantene def nañ ko en amont pour ñu accueillir la quatrième vague même si né nañu au niveau des hôpitaux ñi ngi préparé mais est-ce que am nañ communication pour une réponse communautaire. xam nga xam nga xam nga xam nga luñuy politique politique politique. dafa mm. am des questions assez sérieuses nga xamantene pour man war nañ ci mëna a muy notamment la question relative à la santé lu jëm ci walu wér-gu-yaram parce que tamit. Mm. Euh, moy erreur bi ñepp di def dañuy foog ni opposition dañuy sanni xeer rek xam nga tay ak ak ayib ak ay bu jubé ci kër kenn rëccu ci donc quatrième vague lenn rek lañuy ñuy def. Hmm. mooy euh, directive yi nga xamanteni ministère te ñuy ñaan tamit ministère bi mu tal ñu. parce que nak talon nañu lu nekk candidat candidat candidat li question bu sérieuse la bu ko jaré sax mu mu perdre ses élections wala mu bàyyi campagne bi en tout cas jubluwaat ci ñun diko def comme na ko doon defee bum ñu déléguer kenn nañu tal nañu tal loolu mom, c'est un c'est un message que je lui lance léegi maintenant hmm. muy muy léegi on va vers une quatrième vague nous ñuy ñaan également tout le monde comme nous ñu ko defee woon parce que le Sénégal s'était mobilisé moo tax buy wax nan opposant yi daf may def ay l'homme loo mënti waxal sénégalais yi mooy bi mbas mi on s'est on s'est on s'est réuni, on s'est unis comme un seul homme pour combattre ko est-ce que loolu peut nañ ko xaar ci quatrième vague bi. non vous nga les hommes politiques man ki ma yor boo mu jiite sama parti keneen ak keneen gis nga ce que vous waxal mooy le président de en tout cas au niveau du PRP ñun on n'hésite même pas on n'hésite même pas à ce que le lu nga xamante Sénégal pour jàmmi réew mi pour wér le yaramu réew mi la pour stabilité réew mi la sanitaire dañuy mettre dañ ci dañ ci dañ soutenir donc nous, pour c'est pas une opposition nous dañuy pour sànni surtout par rapport à une question aussi sérieuse que la santé mais je dis encore une fois nous le lu fi jàlloon nag ñu leçons yuñ ci mhm. gis mobilisation bi état bi amone par rapport ak mbas mi te mbas mbas la quatrième vague première vague ba ci am lam doon def mom lay def ba donc mhm. mais may lancer nak message le président Macky Sall diko wax ni par rapport à la situation bi buñ ko négliger parce que négligence nak lañ ci commencé gis. Mhm. gis nañu négligence ci ci ci gestion quatrième vague biñ Abdoulaye Diouf n'a pas notre temps Macky Sall euh, mu ci ay inauguration je pense qu'on aura l'occasion d'en parler mais c'est comme si Mbass amatul. d'accord euh, <laughs> monsieur monsieur Ning Ibrahima alors euh, engouement bi amono ci première vague ñëpp boo bon 4e vague bi daanaka omicron bi tay ñu ngi ci 198 cas. ci ci ci ci au moment où l'on parle. Euh, mbaa du ci ay ñaan nga ko wék Sénégalais dañu bëgg Sénégal. té ku ne xam na né 3e vague bi effectivement ñaan amon amon na ci té amon na ci solo gisoon nañ lim ci def. donc dañuy ñaanaat rek metti woon na aussi. waaw dañuy ñaanaat rek euh, nag kilifa yi la plus meurtrière en tout cas. ci première bi ak deuxième vague waaye nag kilifa yi tëjuwaat ñaan. Mhm. ñun ñu amaat tamit nu ñu dex doxalee mooy nañu respecter distanciation bi takk masque man personnellement depuis que corona bi commencé ba léegi tekkiwuma sama masque parce que loolu la gëm bañ ne ñàkku dem naa ñàkku parce que jàpp naa ne ñàkk warumaa mën a rey man parce que dama gëm yàlla donc damaa ñàkku man parce que loolu yëpp ci bëgg Sénégal la bok. dafa am la nga xam ne boo bëggee Sénégal il faut nga sauver Sénégalais nekkul yow sa bopp personnellement mais ñi nga xam ñoom ngay saafonteel ci bus yi di saafonteeg ñoom ci oto ci marché beeg yooyu ñooñu ngay sóoraale parce que yow yàlla mën na la may kattan nga nga xam Covid du la sonal mais waajur bi ngay fekk ci kër gi sax mën nga ko sonal donc dama ne je lance un appel na Sénégalais yi nañ doxe ci première euh, vague baag deuxième vague troisième vague il faut que ñu booloo mhm. respecter waat les mesures barrières loolu moom appel la bu may lancer à tous les sénégalais. d'accord respecter les mesures barrières gis nga buñ ci xaar Abdoulaye Diouf Sarr. buñ ci xaar le président Macky Sall nag ku ne jël ay responsabilités am. xam ne mbir mi sa mbir la ñu sauver encore le Sénégal parce que catastrophe yi fi amoon. La première vague ba léegi mu ngi continuer te loolu nag la ñuy bañ mu suuxal suñu réew mi ndax réew mi fi mu jëm buñ ci jógul day suux. te le Sénégal mérité wul lool stratégie am stratégie boo xamante ne dal na sa xel par rapport ak ci li ñu jëm bon c'est imminent en fait. pour le moment non pour le moment dafa mel ni docteurs yi ñoo ko téel seen Euh, appui gouvernement bi euh, comme ni connaissons ko ci première vague bi deuxième vague ba ci troisième vague amu ci quatrième vague bi déjà ki ki jité yef yi muy ministre bi ci bopam talul li nga xamanteni moy euh, santé bi parce que li ko gën a soxal aujourd'hui la mairie de Dakar bi nga le candidat la fa. mais le ministre aussi ben nit la am na équipe am na services yi nga xamante quand même ñoom ñoo a doxal aussi c'est pas c'est pas la seule personne. Ah, le problème ça dépasse le ministre parce que nit moo ko de def ko candidat pour mu nekk mu nekk. donc pour yow àndoo ci choix bi. non mënuñu. ci contexte bi non mënuñu ànd ci choix parce que tout simplement mënoo tàbb nit nga jox responsabilité bu gën 10

xam ni am na beneen ndombal tànk bi nekk ci ndonom bii da koy ut waaye am na loo xamante ne mi ngi fi aussi bakkanu Sénégalais yi foog foog pour nous. Le sens de la responsabilité. le sens de la responsabilité. D'accord. Monsieur Thiam, euh... naa moom ndeysaan il faut ma jox ko ñebe. <laughs> alors <laughs> dama naa da nga war jox sa gars <laughs> alors alors monsieur Thiam. suuf la ñuy euh, wax bon la gestion yow wax nga ci ba pare mais dañuy permettre ñu wax ci ci ci actuellement en fait société. gestion lan. Euh, non gestion Covid bi euh, donc voilà wax nga ci ba pare je pas. Oh, mais dama fi dégg yu garaaw ay réew yu suuf. te xam nga Sénégal. oui Ablaye Diouf Sarr le ministre Ablaye Diouf Sarr. Euh, je pense que ni euh, dañ ko féliciter mais nak féliciter nañ ko ci ni mu géré won première deuxième ak troisième vague bi. mais lepp lu mu def ci ndigalu président de la République Macky Sall ko defee. ñu mm. ko exécuter vision du président de la République Macky Sall bon ça dit que ni euh, la bataille contre la Covid. la vision de l'État du Sénégal. waaw mais c'est la vision du président. d'accord la bataille contre la Covid je pense que ni buñ doon xol bien vrai que ben bakken bu wad rek tiis le pour ñep waye buñu xolé euh statistiques yi li dee ci yeneen réew yi defe na ni mo upp fouf te réew yo xamné ne seen structure sanitaire mo gënoon solide ci ñu yoss euh, est-ce que tey jii par rapport ak la 4e vague. amna une réponse communautaire bo boo wa mais xam nga xam nga fiable la boo xamante ne Sénégal mëna ci. waaw mais xam nga président de la République Macky Sall. parce que autant damay fàttali. ba ñuy c'est important parce que griot yi waaw euh, ñëpp ñi nga xamante ne c'est des porteurs de voix des leaders d'opinion dañ leen si boole woon ñu dugg ci askan wi ñu leen nañu waaw xam nga actuellement ñu ngi commencé ci 20 30 40 50 tey ñu ngi ci 158 y a pas une communication officielle allant dans ce sens-là mais mais bàyyi leen ma égali s'il vous plaît oui non si mu wax ni ki mm-hmm. euh, pandémie bi du ñu teree def suñu activité allez-y allez-y waaw léegi euh, le président de la République bu leen fàtte ba ñuy lever les les restrictions là mm-hmm. dañu ne woon dafa waxoon ni nañu vivre avec le virus ok vivre avec le virus il y a eu des dispositifs sanitaires le nga est ba virus est au Sénégal le 2 mars. Hmm? Mhm. Hein? bien sûr Nous avons mis en place. des communications communication sensibiliser ñëpp. Mhm. xale yi ci école si ci marché yi fépp. d'accord d'accord takk masque distanciation sociale raxasu. d'accord gel yooyu ju musu fee jóg. le temps presse. mais yooyu yooyu. yooyu dafay mus a xoolal musu fee jóg. mais y a eu des variants quand même il y a eu des vagues. mais bon est-ce que aussi non yooyu. actuellement l'heure n'est plus à la sensibilisation. mais à la responsabilisation. mais mais mais monsieur monsieur ñu ngi s'il vous plaît. mais xam nga responsabilité monsieur ñu s'il vous plaît. tey jii xam nga la prise de responsabilité. Mm-hmm. elle est individuelle. Mm-hmm. les dispositifs d'accord sécuritaire. d'accord teg nañ leen en place. def nañu ay jumtukaay yoo xamante ni. def nañu ay ay ay expliqué nañ Sénégalais yi. li si des nag mooy la responsabilité. personnelle. xam nga léegi nag. communication bi dafa war a continuer. communication bi dañ ko continuer mais non seulement dañ ko war a adapté. léegi euh, parce que tey jii nii mënut wax kenn rester chez vous. waaw non président nee na loolu. <laughs> non non non non non président président gis nañu ba omi gis nañu ba omicron euh, a été détecté en Afrique du Sud gis la position courageuse. du président pour défendre le continent africain. alors il y' a une question très simple. bon euh, des positions aussi courageuses. pour un autre pays je pense que ni yow lolou ding ko on va parler par rapport au ministre Abdoulaye Diouf Sarr candidat mënu ko téré mu def son travail au ministère parce que do xey 8 heures de campagne.